di maa ngi lay ziar ci loolu maa ngi nuyu bu baax a baax a baax di maa ngi nuyu àdduna ginnaaw sant yàlla ñu ngi jóge si yonent bi di sant suñu ñaari waajur xam nga di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla xaree ko àjjana si àjjana yi gën a xam nga di nuyu ñi fi nekk ñépp di nuyu suma adversaire di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa àndal muy Waly Ndour Moussa Cité xam nga óol xam nga booy mari ko suma grand xam nga di nuyu àdduna di nuy suma sëriñ xam nga sëñ Sidi Mbacke Alxuraan di nuyu famille omarienne bi yëpp di nuy nuyu Baye Jéegi Mbacke borom yooyu yooyu xam nga di nuyu ñi may ñaanal di nuyu waa àll bi waa Gambie waa Guinée Bissau waa Mali waa Libéria nga xamante ni dañuy soom si man si ay ñaan xam nga maa ngi di nuyu bu baax waa Libéria waa di nuyu promoteur bi Fallou Ndiaye maa koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit suma manager suma manager suma papa ñu Matar di ko nuyu bu baax a baax a baax xam nga di nuyu àdduna di nuyu presse bi ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu képp kuy bëggee bi mais waaw parce que waaw dama fa am ñu ma ñaanal mooy sori nga ne Libéria maa ngi koy soog a dégg maa ngi lay fay léegi waaw yàlla yàlla may paas bu ñu demee chaque jour rek tout le temps maa ngi sant yàlla bu baax julli si yoon bi sant la ñaari waay xam di nuyu ñu fi nekk ñëpp xam nga di nuyu suñu papa yi toog fi boobu ba léegi bàyyi seen temps xam di ñuy xaar boobu bu baax xam nga di nuyu Fallou Ndiaye di nuyu ménager di nuyu ñu des stade di leen sant xam nga di nuyu waa bu baax di nuyu ma àndal xam nga asan taw imnu xam nga xulaar jàmm laay xam nga mot ba xam nga Moussa Diaw maa ngi siyaar bu baax a baax ak sëbër bu ñu xam loolu am solo bulldozer yi ci yow laa njëkkee adversaire bi jël Sénégal yëpp ni moom moo la mën lan nga lan nga nga wax ñu kenn du loolu moo am waaw bàyyi mu kenn waxul moom mën xam nga gàmb tey jii gàmb ku ne xam na ne gàmb dafa am pronostic te ku nekk da ngay joxe sa point de vue yaa ngi dégg ñooñu seen point de vue la non du du point de vue favori gàmb ku ku ne xam na ne adver ñaari adversaire yu bëri bu nekk day am favori day am outsider yaa ngi dégg mais loolu du làmb yaa ngi dégg man ku ne xam na ne mosuma nekk favori loolu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax suma premier combat ba suma dernier combat mosuma nekk favori xam nga te terew maa ngi si génn maa ngi sant yàlla bu baax. xam nga caatu yoof mi ngay bu baax a baax a baax. loo xam si moom. non bu baax a baax a baax non dama ko xam li ma xam si moom duma ko ko wax mais le huit boo huit sifflet ba génn suñu diggante moom dina xam ne xam naa ko. nee dama xam loolu laay ñaan yàlla mu xam ma parce que sama tur naa mu dem fu ne xam ma Sénégal loolu bëgg dama si dama sant yàlla bu baax a baax a baax. waxul xam tur na xam ni ngay bëre. ah man moom kenn moom kenn moom la xam ni mu bari 15 combats arène laa def benn defal laa am te façon daan bu neex ak ak sa morom benn daan niróowul ak sa morom ah. si 15 combats 14 victoire yëpp benn morom comprendre nga man mooy loolu damaa mën a bëre am doole am fit am ñaanu waajur boole si. bokk ci famille bu baax yoof laa dëkk li muy def nii yëguñu loolu de ay gàllaaj yi naka teg fële billaay bu ma ko jàppee boo bàyyi ka dina xam ne am lébu pire moo ko téye seen sëñ Bamba waaw nay wax ay waxam rek xam nga xam nga tey jii yaa ngi moom mi ngi nii jox ngay ngi dégg kon loolu bu mu ko ko teg fee man ak moom làmb moo ñu boole le huit soreetul le huit janvier dimanche bi di ñëw bis loolu soreetul yow billaahi waaw waaw waaw kii dama ko wax benn wax bu ko metti te loolu noonu moom mooy dëgg. muy lan nee naa ko kii Yoff si suuf ba si mari ñam laa loolu it takk ngeen ma dara loolu man maa ko wax te dina xam moom dina comprendre wax boobu noonu man fan laa ko teg. kon écurie bi yëpp ñu takkee ci suuf ba si mari ñam laa la takkoon ngeen bu ñëw fii tey si esaan loolu it ñoom ñëpp ku si nekk ma duma la daan la. waaye pare na ah, li mu li lay wax rek. xam nga tey mu ngi rafetal Macky waxul le huit de dama waxoon écurie yëpp kenn mënu ko faa daan bu mu wax la huit na continuer ci li mu waxoon noonu waa yëf dégg na ko bu baax li mu wax léegi yëpp dégg nañ xam nga ñu ngi ko siy bàyyi ba le huit su ma nee kenn kenn kenn mënu ma fa daan rek yaa ngi dégg non parce que mbër yi ñoom ñu fay bëre yaa ngi dégg ñoom ñoo tax may wax yaa ngi dégg te ñoom xam nañ si dara parce que indi nañ mbër ma daan ko jour boobu moom daa jooy jooy met moom daa jooy jooy met jour boobu noonu dama ko bëgg a beral ay jooy boppam ay jooy jàmbur la doon jooy kii Lamine le huit incha allah nga ñuy xam kan mooy Bulldozer. mobilisation mobilisation. xam na ne nii moom xam nga lamb heure bu ñu ci ñëwee dañuy mobiliser xam nga Malika benn bagaat yëmbal Kër Masar Jaxaay Tivaouane Pod ba ñàkk doot di ñàkk gar douze yaa ngi dégg ñëpp ñu ngi préparé lamb ji waa Parcelles unité ñëpp ñu ngi pare gàmb ji suñu toog 14 ñu ngi toog 14 ñëpp. aywa ñu bu baax a baax di la ziare yaakaar naa ne le huit mooy sa troisième journée ci saison bi nga andi nag loo xamante ni amateur yi bëgg nañ ci lool lool lool lool la amateur yi mën a xaaraat ci côté ci côté ambiance. waaw. waa Yoof bu baax xam diwoo suma waa dëkk xam nga waa Yoof waa Ndar waa Mboor waa Jogo xam nga di nuyu waa Mboor bu baax a baax a baax a baax di nuyu suma waa kër xam nga di nuyu ñoom Ablaye di nuyu suñu taawu kër muy Ablaye Gueye xam nga ak Mor Seck di nuyu ñëpp xam nga di gën a woo nag suñu maire yi monsieur le maire c'est la première fois ma soo fekk suñuy combat xam nga ñu ngi bëgg nga teg ñu loxo xam nga bàyyi seeti ñu lay teg ñu lay ñaan nga teg ñu loxo xam di nuyu Abdoulaye Diop Sarr moom daan na si jàpp gën a ñëw jàpp si jëndal booy ticket amuñu leneen lu dul ticket xam nga di nuyu kilifa diine yëpp xam nga laay nuy wàññi xam nga maam Doudou Laay xam nga ñu ngi ñaan si sa barke ñëw jàppale ñu daan di liggéey si kàttanu yàlla xam nga di nga xamante ne ñoo ne diaspora bi xam nga maa ngi leen bu baax ñi nga xamante ne ñoom laa fawandool muy ay ñoom Boubacar xam nga Ousmane Badiane xam nga Banda Fala xam nga Seex AWR ñëw jàpp si combat bi ngeen jëndal yi ticket yi ñu dem stade xam nga di woon ak waa Amérique xam nga Moussa Ndiaye mu ngi lay woo si combat bi gisagul la xam nga maam Ousmane Ndoye xam gis nañ sa loxo bu buñ sañoon nga gën a yokk nag xam nga di ñëpp sant yàlla julliwaat si yonent bi xam nga di nuyu xam nga Pape xam nga El Hadj Ama xam nga stade bu jaadu yëf di nuyu sama famille xam nga di nuyu ñëpp di nuyu Assane Samb xam di nuyu ah, Zil borom Japon ñu ngi lay woo si combat bi moo faal l'international ñu ngi lay woo si combat bi ñu jëndal gars yi ticket parce que ñu ay doomu Yoff lañ may sa feeraay suñu ASC nga nekkoon ñëwoon nga jëndal ñu ticket xam nga ñu mën a mobiliser stade ñëw mën a wane suñu bopp si kàttanu suñu borom incha allah. jërëjëf bu Ndezane. waaw Lamine man ñi may njëkk a woo si lamb bi mooy amateurs yi ñi nga xamante ni fekkee wuñu li nga xamante ni mooy guerre mondiale 14 18 yooyu na ñëw incha allah seetaan di ko seetaan commencement ba fin bu yàlla. di si di maa ngi sant bu baax a baax. doo geer da ngay sóob yow tàppeen nga da ngay xëmbal gars yi nii rek mais doo taxaw man maa ngi nuyu Abdou taal bu baax moom Abdou Tall maa ngi koy nuyu bu baax di gën a wóor si combat bi Abdou Tall sama copain. kii daa yow da ngaa wax di xam nga bu baax a baax baax li ma la wax li nga xam ne lépp dëgg la dal wax rek maa ngi xam nga tey ji non yooyu ay détail mais. kii day kawe di wax. Euh, wooteel wooteel mu dinaa ko du tëdd naa ko daan. waaw wo wooteel wooteel waaw maa ngi nuyu bu baax a baax a baax suma grand xam nga sumay grand sax laay wax ñu seex yi les jumeaux les jumeaux boutique Assane maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak Ousseynou xam nga di nuyu suma waa écrit di nuyu waa Marika ñëpp di woo ci combat bi sama papa Ndiogu saw xam nga di si woo waa parcelle waa parcelle xam nga ñoom am di gars yi ñi nga xamante ne dañ may jàppale ñëpp. maa ngi di woo sama boy Aziko yi ñoom Ahmed Top maa ngi ciy woo sama papa Libaas Mbaye xam nga suma grand ñoom dun suma staff ñëpp su ma limee dinaa juum ñoom suma grand Paul Douane suñu waa kër sama waa koñ xam nga waa yëmbal tëddi marin bi nga xamante ni fa laa juddoo yaroo fa màggee fa waa Pikine xam nga maa ngi woo ñëpp ñi nga xamante ni dañ may jàppale xam nga suma grand euh, suma grand bul géwél bu ama maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax di ko wax na ñëw jënd si bëgg yi xam waaw merci beaucoup. jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax rendez vous le huit incha allahu rabbi